yoonu murit tey nag ñu teew fii ci kër sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Chouaib tey nag ñu teew fii ci kër sëriñ ngir waajal moom sëriñ bis bu tedd boobu nga xam ne mu ngi ci sun kanam ngir waajal su rajab bis bu tedd boobu nga xam ne mi ngi ci sun kanam tànn boo xam ne daf ko koy waajale su rajab bis boobee nag mu am sëriñ bu tànn boo xam ne daf ko koy waajale mu xaddamatu boobee nag mu am ci ci loolu rëy boo xam ne daf ko jagleel daa iratu mu xaddamatu lool ak xol bu set nag daayira bi ci am teraanga ji nga xam ne Serigne Abdou Samad yëkkati na ko teg guyu seen loxo ci teraanga ji nga xam ne Serigne Abdou Samad yëkkati ci loxoy Serigne Afia mi nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp kaddu cant yi waaye ci loxoy Serigne Afia mi nga xam ne mooy sunu kilifa ñun sàkk woon ñu dugg ci biir waxtaan waaye dugg bu gàtt Serigne biit boo xam ne day laal ci biir waxtaan wi diggante Cheikh Mouhamadou Fadil ak boo xam ne day laal diggante Cheikh euh, Mouhamadul Fadil xam ngeen ne Cheikh Mouhamadul Fadil jumaa ji yàlla baaxee na ko mu bokk ci euh, ña nga xam xam ngeen ne Cheikh Mouhamadul Fadil na leen yàlla baaxee na ko mu bokk santaane jumaa ji ña nga xam ne xoon leen woo woon na leen santoon ko ci santaane jumaa ji ndigalul boppam loo xam ne wax na ko ba tey santoon ko ñu bari di ko dégg ndigalul boppam loo xam ne lu bari lu ñu xam na ko ba tey ndigal loolu ñu bari di ko dégg ay kàddoom la ñu ko déggee lu bari lu ñu xamit ci ndigal loolu daana wax ne sëriñ seriñ bi mu leen wooyee la ñu ko déggee daf leen waxoon ne na ngeen ci farfar na ngeen ci daana wax sëriñ bi bi mu leen wooyee góorgóorlu ci daf leen a waxoon ne sunu borom farfar may na ko te won na ma ko ba ma teg ci sa bët góorgóorlu ci su ngeen ci góorgóorloo taxaw may na ma ko te won na ma ko ba ma teg ci sa bët dana am su ngeen ci góorgóorloo taxaw na am mu sot nee na boobee la ko wax woon moom ne ko dana am yow nag ku ñëw na la ca fekk dana am ku lii ma leen di defarloo na la ca bàyyi liggéey jumaa ji waxoon na ko iznun la min rabbil alamin lii ma leen di defarloo kat waa ndigal la lu bàyyi ko rabbil alamin jaar ci yonent bi alayhi salaatu wa ndigal la lu bàyyi ko yàlla ko jaar ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëw ci man bi ma ko joxee it suñu borom it malayka yi bi malaayika yi dikkal nañ ma aw yiw ak teranga sàkku ci man ma liggéey leen waaye ma ne leen jërë ngeen jëf sant aw yiw ak teranga ma liggéey loo leen li bi booba daan ko taxawu te la bokkoon bokkoon na ca bi fi sëriñ bi jógee Cheikh Mouhamadou Moustapha di fondement ji te la bokkoon ci liggéey bi fi Cheikh Mouhamadou Moustapha di jógee waaye tey nag mi ngi ànd ak moom li ñu mooy moom bi mu waaye tey nag doonee xalifa te tàmbali liggéey bi mooy moom ba yàlla def bi mu liggéey bi sottee doonee xalifa ci loxoom te tàmbali liggéey bi bi mu nag ba yàlla def lan lañ mën a xam liggéey bi sottee ci loxoom bi mu sottee nag lan lañ mën a xam dee mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir réew mi di ay kilifa yi diine ak ay kilifa yi aada ñoom ñëpp ñu ta ñu ñëw ànd ak Cheikh Mouhamadul Fadil ba mu agsee rek dafa daal di yéeg ci kaw tirbine officielle bi ànd ak ñi nga xam ne ñooy ay invité am ba mu agsee dafa dal di wax ne maa ngi sant yàlla bu baax ci jumaa ju rëy jii ju tedd jii nga xam ne. sunu kilifa di sunu sëriñ di sunu wayjur cheikhul xadiim santoon nañu ko digaloon ñu ñu sonn ci te góor góorlu ci ba mu taxaw waaye muy barab boo xam ne it sëriñ bi joxoon na ma ci sama ndigalul bopp waxoon ma ne yow cheikh Mouhamadul Fadil ku ñëw na la ci fekk ku dem na la ci bàyyi may sant yàlla nag bis ni ki tey yàlla dimbalee na ma ba ñuy wër xeer yi ci dem yàlla baaxee woon na ma xeer wa ci njëkk a dem ma ci sama loxo la bàyyi koo woon bi ñu demee ba muy sotti itam ca njobbaxtaan la soror ba su xeer wa ci mujj man mii maa ko ca teg kon maa ngi sant yàlla bu baax tey ndokkeel nag seexul Khadim ci ndigalam lii nga xam ne mat na bis ni ko tey ca la waxe woon ñaari bayitam yu tedd yooyee kama xat kunta taamulu yaa xadima bihi hunnita fii daari naimi fa kun fi niamatin abadan muqima muaafan murtadan sayq alqadim daa di ndokkeel jullit ñëpp daa sant eh, architecte bi nga xam ne mooy rewoon liggéey bi sant itam taalibe ya fa teewoon yëpp ak bokk ya fa teewoon yëpp ak bokk jullit ya fa teewoon yëpp bi fukki waxtu ak benn jotee ci bis boobu ci lay sikati naa nag jël caabi yi teg ko jébbal ko Cheikh Mouhamadul Fadil muy caabi yi muy mbégte mu rëy ci Cheikh Mouhamadul Fadil doon mbégte mu rëy ci yoonu murit bépp waaye doon mbégte mu rëy ci jullit ñëpp doon mbégte mbégteem Sénégal itam nag ca la waxe moom astec bi nga xam ne moo yore woon liggéey bi xam la ne liggéey bi sëriñ bi dépensé na ci lu toll ci six six cent soixante dix sept millions mille huit cent trente huit six cent soixante six cent quarante huit mile huit cent trente huit francs CFA loolu nag mu wax ne am na yoo xam ne ay liggéey la yu ñu waroon a fay yoo xam ne bokkul ci lim bi mu wax yu mel ñu ne ko yu nan mooy mu ne taxawaay yi nga xam ne morit yi ñu ngi ko amee woon ci liggéey bi guddi ak bëccëg ñuy jànkoonteeg luy tax liggéey bi sotti ba mu egsi fii lu mel ne gas carrière bi lu mel ne toj carrière bi lu mel ne tuxale carrière bi ndokk andi ko Touba transport bi ci waroon lu mel ne gas suuf si nga xam ne moo mën a liggéey liggéey bi lu mel ne itam andi ko ko soxlaa lu mel ne ndox mi nga xam ne moom lañ daan rooti di ko indi te tàmbalee woon ko ci jamono yi nga xam ne ña ngi ko daan du roote ci déeg yi ba ni forage amee ak mbooleem liggéey loxo yi nga xam ne murid yi ñu ngi ko doon def mu wax ne am na itam lu am solo lu ci am mooy ne liggéey bii mbooleem li ko ak li ko sottal lépp liñ ci taxawee lépp ci wàllu architecture ak ci wàllu manœuvre lépp daf cee am taxawaay bu am solo boo xam ne entreprise Sénégal yi wala liggéeykat sénégalais yi nga xam ne ñoo nekkoon nañ ci biir taxawoon nañ ko ci te mbooleem loolu lépp daawuñ ci fayeeku benn dërëm ndax ñi ëpp ci ñi ko doon taxawee ay sénégalais lañu waaye ay taalibe yi Serigne lañu yoo xam ne dañu daan liggéey ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba rek loola moo tax liggéey bi bi ñu nattee xaalis bi ci jamono yooyu mu toll fii waaye bu ñu seetloo li ñuy gis ne li ñu gis mooy bu fekkonte ne tey jii yooyu mu lim te wax ko yépp ne ay taalibe yi murid ñoo ko doon taxawe su dolli ko woon ci lim bi doon na romb milliard ca jamono jooje di woy nañ natt nag milliard ci jamono joojee lan lay war a tollool ci jamono ji bii loolu amee le président Senghor yéeg sant sëriñ bi bu baax daal di wax ne tabax bii tey bokk na ci patrimoine national yi Sénégal yi yi nga xam ne taaru na lool yëkkati ko lool bokk na itam ci jumaa yi nga xam ne ñoo gën a rafet ci àdduna bi soorooram bii itam mooy sooroor bi gën a gudd ci àdduna bi kon liggéey bu am solo la boo xam ne taaralaat na Sénégal yëkkatiwaat na turu senegal yóbbu na ko fu kawe bi président noppe la secrétaire général secrétaire wu sëriñ bi di alaaji Dame Dramé def benn discours ci tubaab bu am solo bu matale boo xam ne ci la dalal gan ñi waxtaan ak ñoom biñ demee nag ba une heure et jot ci la sëriñ bi nag génne këram ànd ak délégation yooyu moo waxoon ak ñeneen ñi ci bokk ñi ci topp ñëpp wuti nag ca jumaa ja biñ dikkee nag ci la sëriñ bi yéeg ci kaw bar bi def xutbaam bu am solo ba wàcc jiite mbooloo mi ñaanal leen muy jumaa joo xam ne nag mi ngi euh, yaa tegu ci es euh, ci superficie boo xam ne nii la tëddee guddaay bi jële ko ci sowu ba ca penku nekk na cent trois mètres yaatuwaay bi ci sowu nekk na soixante dix soixante deux mètres yaatuwaay bi ci penku nekk na cinquante trois mètres kon sowu bi gën naa yaatoo penku bi juróom-ñeenti mètres miir bi mi ngi talee talaayu un miir bi mu ngi guddee ci kaw 9 metre terrain bi nga xam ne wala superficie bi nga xam ne ci la jumaa ji tege lépp mi ngi nekk 8790 mètres carrés yoo xam ne mukaab la mukaab mooy loo xam ne ñeenti koñ la dafa carré waaye genn wet gi dafa gën a gudd gi ci des maanaam guddaay bi moo ëpp yaatuwaay bi tuuti am na ay keno lu toll ci cent 112 keno jumaa ji fi sëñ Fallu bàyyi woon nag la ñuy wax am na ci 112 keno yooyu 84 yoo xam ne dañoo sës ci miir bi ci biir 112 keno yooyu itam am na ci 78 keno yoo xam ne 1 mètre sur la am na ci 16 keno yoo xam ne 2 mètres sur 2 mètres la kaw gi itam dañ koo defal ay xubba xubba xubaayin ay coupole yoo xam ne mat na cent neuf xubba téeméer ak juróom-ñeent sàppe yi rang yi rangé yi nga xam ne moo nekk ci biir diggante kano yi boo ko nattee fukki rang lay doon ak ñeent yu mag yoo xam ne benn bu nekk dana mën a def dana mën a jël lu mat ñeenti sàppe ca jamono jooyu laloon nañ ci lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ci ay tappi ay sajaada yoo xam ne ñi ngi ko liggéey woon Maroc sëriñ bi santoon waa Daaru Salaam ñu faggu ko benn sajaada bu nekk lum mu néew néew néew ay nit dana mën a jël lu toll ci fukki nit nga xam ne ca booba ci natt bi nga xam ne moom la ko tubaab bi nattoon te bokkul ak ñun ni ñuy jullee nga xam ne dañuy sësaloo waaye nit ku nekk taxaw doo sës si sa moroom doo ngeen jegee du ngeen laalante mënoon naa jël booba lu toll ci mille cent personnes yoo xam ne kenn du xatal sa moroom amoon na itam ci ay illustre mooy làmp yi nga xam ne yu rafet la. lu toll ci téeméer ak ñaar fukk yoo xam ne ñi ngi doon lang ci ron xuba bu nekk ak ci barab yi nga xam ne ci la war a nekk yépp ñu liggéey woon ko ci genre plastique bu dëgër bu rafet boo xam ne day mel ne lu fot font waaye am ay couleurs yu rafet itam lampe bi nga xam ne moo nekkoon ci xuba bu mag bi rafetoon lool doon illustre bu mag boo xam ne ñu ngi ko liggéey woon ci përëm bronze bu rafet amoon ay weer yu am ay couleur yu rafet te booba daan niit forme jumaa yépp am ci nag euh, dix yoo xam ne dañ ko samp muy niit soror bi nga xam ne bu guddee foo mën a jóge dangay ngay seen bi mu leer nañ rafet lool nii mu bindoo tey yoo xam ne benn bu nekk mi ngi sore woon soroor bi lu toll ci fukki mètre nekk ci kaw terrasse bi nga ne bu ni mu ko dande noonu dix mètres bu niitee day àgg ci kaw bunt yi nga xam ne ñoo doonoon bunt jumaa ji bunt yi nekkoon ci biti juróom-ñeent la juróom-ñeent la ci wetu penku gi amoon na bunt bu mag bunt bu mag ci càmmooñ am ña ci sow am ñaari bunt yu mag ci ndeyjoor am ñetti bunt ci càmmooñ am ñetti bunt mu am bunt bu ñu jagleel jigéen ñi bunt yu nekkoon ci biir juróom-ñeenti bunt la woon moom amoon na ñaari bunt ci barab bu mag bi benn bi ngir dugg la woon benn bi ngir génn la woon amoon na bunt buñ jagle imam bi mu génne ci daara kamil dugg ci biir minbar bi amoon na bunt ci soror bi nga xam ne moo féete sowwu te féete ndeyjoor ñu di fi nodde amoon na bunt itam ci soror bi nga xam ne moo féete sowwu te euh, jàngukaay bi nekk fa ci wetam waaye amoon na bunt itam bu jëmoon ci rajo yi mooy fi rajo yi nekkoon amoon na itam bunt boo xam ne moo jëmoon ci jullikaayu jigéen ñi te mooy jàngukaay bi bi moo nekk ci ginnaaw jàngukaay bi ci suufu jàngukaay bi fenêtre yi nga xam ne ñoo takko takk ci jumaa ji nekkoon na lu tolloon na ci 94 fenêtre yoo xam ne ñu ngi ko liggéey woon ci fer moo amoon ay pâte de verre yu rafet yoo xam ne yu am couleur la woon nga xam ne boo ko jant bi niitee day takk mel na ay làmp di tàppe rafet lool ci biir jumaa ji benn bu nekk amoon benn tableau boobu bronze boo xam ne dafa tegu ci kaw def forme biddiw nga xam ne su naaj bi tàppee ci kawam buy tàppee ci suuf day mel ni biddiw bu tàppee rafet lool xubba yu mag yi moom itam bi nekk ci digg jumaa ji boobu ñu ngi ko def ci espace boo xam ne mi ngi toll ci douze mètres sur douze mu guddee ci kaw vingt et un euh, fukki keno yu mag ñoo ko yanu ci biir xubba boobu ci la mihrab bi nekk ci wetu mihrab bi fi la min fi lañ def minbar bu rafet boo xam ne ñu ngi ko liggéey woon ci bois ak fer ak bronze mu amoon benn giri bu boo xam ne itam dafa séparé woon diggante mbooloo mi ak kilifa yi nga xam ne ñooy nekk ci wetu imam am na it beneen xubba bu ñaareel boo xam ne xubba bu verte la moom la ñuy tuddee al xubbatul xadra nekk ci wetu penku gi waaye féete càmmooñ boobu mi ngi nekk 17 mètres sur 17 ci ronam nag ci la barabu ku tedd gi Cheikhul Xadim nekk ah, xubba boobu itam lu toll ci fukki keno ak juróom-ñett ñoo ko yenu ñu karale woon ko ay karo yu wer yóbbu la yu seer yu rafet yoo xam ne ay deux deux la woon ci kaw xubba bi ñu def fi ñu yett ko def fi benn kibéer goog weer goo xam ne dafa tiim barabu ku tedd ki nga xam ne buy taw buñ ko ubbee buy taw ndox mi day wàcc ci kawam ci kaw barab bu tedd boobu am na it beneen xubba bu ñetteel boo xam ne mooy xubba alquraaniya bi nga xam ne mooy nekk ci daaray kaamil boobu mi ngi nekk ci wetu ndeyjoor gi ci penku ba tey moom itam 17 met la guddee ci wet geneen gi ci des yaatoo 32 mètres ci wet gi ci des 28 keno ñoo ko yenu ci ron xubba boobu ñu ngi ci laloon lu toll ci 32 sajaada yoo xam ne benn sajaada bu nekk matoon na 4 mètres ni ko waxee woon léegi rek ci sajaada ni ko nattalee woon sajaada bu nekk mën naa jël lu ëpp fukki nit yoo xam ne kenn tegoon nañ fa lu toll ci 33 nit maanaam fanweeri nit ak ñett yoo xam ne ñu mokkal alquran mokkalin wu rafet lañu ñoo nekkoon limu daare kaamil bi ci jamono joojee ñoo xam ne daanañ jàng bis bu set ñetti yoon yi tegaloo fi daan jàng ñeenti kaamil ci bés bi maanaam ñaar ci suba benn tisbaar benn takkusaan guddik ajjuma gu nekk daanañ ci jàng juróom-ñaari kaamil moo daan complété juróomi par bés mu war a nekk euh, bés bu nekk ñu jàng juróomi kaamil boo ko ci dollee loolu moo daan wane ne daanañ jàng lu toll ci téeméeri kaamil ak fukk ak juróom-ñett ci weer wu ne cent dix huit kaamil daan jàng ci at mu ne mille quatre cent seize ci ay kaamil te loolu jotewul dara ak daaray kaamil yeneen yi nekk ci biir dëkk bi jotewul dara ak yeneen kaamil yi nga xam ne ñu ngi koy wàcc ci munasabaat yi lu mel ni gàmmu yi lu mel ni màggal yi lu mel ne xew-xew yi nga xam ne day xewaat ci dëkk bi te lu nekk di ko laltaayee alquran loolu di wane euh, taxawaay bu euh, cër bu rëy boo xam ne yoonu murid jox na ko alquran xubbam ñeenteel bi te mooy bi bi mujj ci xubba yu mag yi mooy bi nekk ci sowwu nekk ci diggante ñaari sooroor yi jumaa ji am amoon na ci booba juróomi soroor yu mag benn sooroor bu mag bu ñuy tëddee làmp faal ak ñaari sooroor yu ndaw yu nekk ci sowwu ak ñaari soror yu ndaw yu nekk ci penku soror bu mag bi bi biddiw lañ ko liggéeyee maanaam musamman la juróom-ñetti koñ la am mu ngi nekk ci digg jumaa ji ci benn kuur bu yaatu boo xam ne dafa xaw a jege dafa xaw a gën a jege buntu sow bi ci ëtt bu yaatu boo xam ne mu ngi nekk quinze mètres sur quinze guddaayu sooraal bi nekk na 87 mètres ak kat yu teg 82 centi euh, centimètres 87 mètres 82 centimètres wala buñ koy xool day mel ne dana dem euh, lu toll ci vingt cinq vingt cinquième mu ne soral bi am na lu toll ci juróom-ñetti keno yu mag yoo xam ne dañ leen a defal fondation bu xóot ak ay micropieux yu sori ci suuf ngir ñu mën koo yanu def ci ci fer ak ciment ak euh, béton lu bare bare bare bare bare ba diisaayam toll na ci quatre mille huit cent tonnes escalier yi nga xam ne moo lay yéegal ci soro bi toll na ci cinq cent quatorze escalier amoon na it benn ascenseur bu bu courant bu rafet bu baax bu neex boo xam ne moo nekkoon ci biir soro boobu nga xam ne visiteurs yi fi daan ñëw te nekk ay kilifa ci la ñu daan jaar di yéeg ci kaw ngir mën a gis dëkk bi yépp mën a gis kaw jumaa ji gisee wu am solo amoon na ci kaw itam làmp bu xonq ak bu bula nga xam ne ca jamono yooyu ku toll ci trente kilomètres de Touba ci nga daan seen soroot mu am leer làmp bu xonq bu nekk ci kaw boo xam ne làmp bu bula moo ko ëmb ci kaw njoboxtanu soroot bule boobu dafa bindoo woon comme ni dafa meloon ne comme biddiw ak weer weer woo xam ne weer wuy na itam ronam ci kaw terrasse jumaa ji yéeg ci kaw sooral jullikaayu jigéen ñi mi ngi nekk ci sowwu ci wet gi féete càmmooñ dend ak soror bu ndaw bi nga xam ne moo féete sowwu ci càmmooñ am na fa lu mel ne jàkka yoo xam ne dafa am mihraab jublu la ci biir nekk jàkka yi boppam yoo xam ne ju beru la ci jullikaayu jigéen ñooñu moom it ci jamono yooyu mi ngi def lu toll ci vingt huit tapis ci tapis yi ñu waxoon léegi yi nga xam ne quatre mètres sur quatre lay jël amoon na itam ñetti jàppukaay jàpp ñaari jàppukaay yi ñu ngi nekk ci sowwu jumaa ji jàkkaarloog buntu sowwu bi benn bi ci lu toll ci fukki mètre digganteem ak jumaa ji benn bi moom dafa beru sës te jullikaayu jigéen ñi ñu jagleeloon ko jigéen ñi euh, ndox mi nag mi ngi daan jaare di yéege ci kaw ay li ko daan yéegal ci kaw ay pomp la yoo xam ne pompe électrique la yoo xam ne mi ngi ko daan jëlee ci suuf ci citerne bi nga xam ne moo nekk ci suuf di ko yéegal ci na yi nekk ci kaw booba di ko joxaat jàppukaay yi di ko joxaat itam mbànd mi nga xam ne moo nekk ci biir loolu nag benn transformateur moo ko daan doxal boo xam ne euh, transformateur la mécanique yëpp ci courant la daan dox mu nekkoon lu yéeme lool te jamono yooyee miiru jumaa ji nag ak keno yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir yëpp ak suuf gi yëpp dañ ko karale woon fere bu bula boo xam ne deux la woon bu rafet am ci itam façon boo xam ne dañ ko séparé woon façon bi ñuy defaree biir jumaa ji ak façon bi nga xam ne moom lañ defaree jàngukaay alxuraan bi amoon na ci yoo xam ne dafa zone am ci yoo xam ne dafa bula am ci yoo xam ne dafa vert am ci yoo xam ne dafa weex li lépp nag taxoon na képp ku gis jumaa ji ni mu rée woon ak ni mu rafete woon ak toona bi nga xam ne sonnoon nañ ko ci daf la daan yéem lool ci taar ak ci fànn euh, ak ci architecture bu rafet loolu moo taxoon mu bokkoon ci tabax yi nga xam ne ñoo gën a mag te gën a rafet ci Afrique bokkitam ci jeexit juy sax ju bokk ci jeexit yi Cheikhul Xadim radiyallahu anhu kon nag jumaa ngoog joo xam ne fuñ ne hayya ala salaa nit ñëpp war nañoo wuuji ngir ab taaram ngir ab barkeelam ngir ak rëyam Cheikh Mouhamadou Fadil doon wax ne jumaa ji nga xam ne moo gën a rëy ci jumaa yi gën cee taaru gën cee rafet te yàlla dogal mu sottee ci samay loxo man mii di doomam jiitu tudd alxaaj Mouhamadou Fadil Mbacke kon kooku li ko taqale ak jumaa ji mm. lu rëy la lu rafet la moo tax bu sëriñ bi tànnee bis bi jagleel ko Cheikh Mouhamadou Fadil Euh, séddee ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa joojee delloo na battu bi te ndaala kon ci biir loolu ñu ngi sant bu baax sëriñ bi ci jagle gi nga xam ne moom la jagleel daayirat muxaddamatul xidma bis bii di ko wax ne daayirat muxaddamatul xidma itam teew na teewaay boo xam ne amoon na yéene yi mu ëpp lool waaye ñaar daf cee am ci ay gàllankoor benn bi mooy guddi gi beneen bi ci des itam mooy sooy waayu barab bi tax na soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daayira Moukhaddamatoul Khidma jiite ay kuréel yu mag mm-hmm. ñu man cee ràññee soxna Bintu Sarr moom Serigne Bassirou Sarr jàmm Serigne Touba mm-hmm. soxna Mbayang Jum ci Daarul Xadim soxna Njaxat Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad mbake soxna Maam Awa Touré moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke soxna Faati Dia moom Serigne Abibou soxna Maymuna moom sëriñ Muntaxa soxna maam Faati Mbay moom sëriñ Abibu moom sëriñ Fallu waaye ak seen kilifa nag soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Abibu ñoom ñëpp amoon nañu yéeney teew waaye waxtu wi ak soriwaay bi moo tax ñu jéggal leen ko waaye teewul nag sëriñ ñu di la xamal ne ñoom ñëpp kenn ku nekk yebal na ay ndaw yoo xam ne dañoo ci ay góor yoo xam ne dañoo ñëw ngir teewee seen jëm loolu nag dana laaj yéene ji ñu amoon ak pas-pas bi ñu amoon ci ñëw mm-hmm. waaye ñu tegg leen ko ngir guddi gi ñu sàkkaat ay ndaw yu am solo yu ko mate seeni doom ak seeni njaboot yebal leen ñu ñëw teewe ko dana laaj ñu nuyee leen ak sëriñ bi